xibaar yi wér te woo fii ci leeral SN aboneel te cliquer ci poste notification yi xaar suñuy vidéo jërëjëf pour li tubab tuddee confiance manam kóolonte ci bir xeet dellu ci ci réewum Sénégal ndax dañu nekk ci ay goudi ak ay bëccëg yoo xam ne nii daa daanaka kóolonte amatul ci Sénégal kenn wóoratul kenn góor wóoratul jigéen jigen wóorootul mag xale xale mag loolu fa mu te am na ci dund te ko kon pacte institutionnel du mouvement politique bi nga xam ni yàlla dogal na tey ma nekk ci bopp ci laabire gu ma ñi ma àndal ci bopp bi am ci man yaakaar ma am ci ñoom yaakaar te yaakaar bi di rek dox Sénégal ci Sénégal pacte institutionnel boobu moo bëgg kóolute dellusi ci réew mi ci ay kàddoom ay jëfam ay demam ay dikk ay dikk ay ay dikkam moo tax ñuy woo képp ku yeewoo ci réew mi moo xam bokk nga ci pacte institutionnel moo xam bokkoo ci nga bëreeg seytaane di wàccoo kuréelu senegal nañu bindoo nañu ko tëggee gaa am na lu loo mën a naqari ci kuréelu Sénégal yi ni ñu ko bind ak ni mu ko ak ni ñu ko tëggee ak na nañuy doxe ak décision yi ñuy jël waroo mën na ci am ci diggante citoyen bi wala citoyenne beeg kuréel gi waaye loolu lépp lu ñu mën a waxtaane la ci réew mi loolu lépp débat mën na tax ñu xam xalaat yu rafet yi yan la ba kër ba kuréel yooyu ñu jox leen ndëgër laay jox leen toogaay boo xam ne nii lépp lu ñu dogal askan wi yëpp bokk ko rafetlu dox ci loolu loolu mooy li nga euh, pacte institutionnel ndax jàpp na ni loolu mënul suñu confiance de dellusiwaat suñu diggante ñun ñi dëkkee réew Sénégal